wër na ko ndombo moytul ñu daan na la oh, il est prêt il est prêt waaw waay bàyyi leen ko waay yow xoolal booy yi Quench jàppoon na tànk du jàpp na tànk ndax day yenu ba ci kaw jël ci suuf maa la wax li yenu na ba ci kaw jël suuf Zoss jël na ko Zoss takk na ko Zoss yëkkati na ko dóor ci suuf ay laay la laa Zoss daan na Eumeu Sène junior wëlbet kan wëlbet kan moo fu mu daw te léegi làmb am na xaalis làmb am na xaalis léegi ñoom ñaar jàppante nañu Garga 2 Tyson 2 war na ko nombo Tyson 2 war na nomba Garga 2 ñoom ñaar ci suuf Garga 2 bañ na Tyson 2 war na ko nomba yenn na ko ba ci kaw dóor na ci suuf Garga 2 def na trois appui ñoom ñaar Garga 2 bëgg na cee génn waaye Tyson 2 da ngaa dajeeg ndaanaan tey yi Tyson 2 daan na Garga 2. waaw ko daan ko daan na ko. daan na ko décision la ko daane mbër day am décision. dafa décidé daan ko. ah ànd ak dal daan ko bëri bëri bu rëy daan ko. ko jël. ku xeexul doo daan. Zos dooraat